nee na man shakka képp koo xam ni da ngaa sékki sàkka fii kaw nit ñi Abdullahi ci doomu Abdullahi ji nekk gu mu nekk. Muhammadun nuurul waraa fallaay. doomi Abdullahi ji tudd Muhammad képp ku sékki sàkka ni mooy leerug mbindeefi yàlla sàkk yépp kuy foga ku réer nga. asa rasulillahi ma lam yaxlami. Cheikhul Xadim nee na làq na moom ndawal yàlla lii loo xam ni kenn xamu ko. ila lasi xaatabahu bi kalimi lu dul boo ki ko xam mooy yàlla mi ko sàkk te wax ak moom ci ngën gi wax di alquranul karim muhammadun fardun yafooxu tasniya mu ni muhammad mi may woy ca madinatul munawara fardun kenn la ku wéet koo xam ne yafooxu tasniya féete na kaw képp ku ko bëgg a ñaareel wa faaxa jam'an wal hadaaya muxniya wa faaxa jam'an féete na kaw mbooloo yépp wal hadaaya muxniya njub gi ko yàlla jox nag lool rek laa doy loo mooma doy wara nee na waxuma man xaala de man zanna képp koo xam dangaa njort ni annal muntaxaa ku mel ni muntaxaa mi di yanant bi mislul wara mel na ni benn mbindéef rek man zanna annal muntaxaa mislul wara seexul xaddim nee na ku njort laa wax waxuma ku wax ci làmmiñam de ku xalaat ci sa xel rek ni am na benn mbindéef bu mel ni yanant bi fa huwa xumrun xalbuhuma nuyra ki xalaat loolu te koy njort fa huwa kooku xumrun ab dof la boo xam ne xalbu oo xolam ba maa nuyra kenn leeralu ko darajatul muxtaari nee na euh, daraja yanant bi yàlla tànn darajatul muxtaari bil mursili nee na yanant bi yàlla bi nga xam mooy soppe ku yàlla yónni te yàlla tànn ko darajaam bixtilaahu darajaatu rusuli ixtilaahu dana yëkkatikoo bi xaa ci daraja jooju darajaati rusulim darajay mboolem yenant ci des ci darajay yenant bi lañu ñu yëkkatikoo ñoom rasuluna ahmadu lam yudaaxa rasuluna ndaw la yàlla lii nu yónnee mu yenant bi ahmadu ki tudd ahmad lam yu déet du gam-gam leeg moom mukk xattu waxaw du kaana la yudaaxa lu weesoo am ak lu dëgmal la weesu mësuta gam-gam leeg moom mukk li ñu dëgmal tam kenn du gam-gam leeg moom sa bopp sayyiduna alqaa'idu lil jannaati li fi nekk mooy sayyiduna sunu sang bi alqaa'idu lil jannaati mooy kii wommat mbindeef yëpp jëme leen ci àjjanay sunu borom. jëfa biha alxalamu silminaati. dégg naa nag li ngay contesté ko mën a weddi nga waaye lii ma wax man sëñ Tuubaa bi biha xalamu silminaati yàlla miy dogal mbir yi te moom xéewal yëpp xalimaam fendi na ci sa fini kenn mënu koo dindi. wala la xaynu nafaa ullahu. nee na wallaa wane na ginnaaw laayinu kan soytaane iblis wa nafaullah waaye yàllaa ko dàq mu wane ginnaaw li xayrihi wa faasam wala yàllaa ko dàq li xayrihi mu jëm ci keneen ku dul njabootu yanant bi wa faasa te am na ak texe man képp koo xam ne waalaahu méngoo na ak yanant bi lam yaqtaxu no ko no indaru musa seexul xaddim nee na réerul nëbbutuwul làqutuwul nekk gu mu nekk moom yarantu bi di buuru buur ñëpp di sangu-sang ñëpp di seen njiit lam yax ba kaw no raisu ruasa nee nag yarantu bi génn gu mu gën ñëpp jiite ñëpp di président président yi di njiitu njiit ñi nëbbuwul wa abadan iblisu min ya isa mu ni itam bir na ma man sëñ Tuubaa ni ba àddunay tukki daal iblis day naagu ci moom du man dara ci mbiru yanante lu tax iblis mënta am victoire ci moom mu ni ndax yàlla moo alak iblis yàlla mii boroom aras ba faw moo alak iblis munsarifan munsu aba yahbuda bi mu ko alagee nag ca la daal di soppi koo daal di wiññi aw yoonam dem feneen bi nga xamee ne yàlla bañ na keneen di ko ba mu bañee jaamu yàlla sunu borom la ko yàlla dàq lam yadu naxwaal mustafa wallaahu nee na nag moom iblis dootul dëgg dëgmal mukk wàllu yarantu bi alayhi salaatu wasalaam taraduhu li xayri man wallaahu yàlla mi nga xam ne moo sàkk iblis sàkk yarantu bi moo dàqal iblis moo dàq iblis ba mënta dem ci wàllu yarantu bi laa yantahil madinatal munawwara iblis sax du dëgmal dëkk bu tedd ba nga xam moom la ñu leeral muy madinatul munawwara du fa jëm laa yantahil madinatal munawwara iblis mënul dara ña tëdd ca yanantu ba tëdd ma madina iblis du fa dëgmal suu un xamaha su baxa in sawara wala boog du dëgmal madinatul munawara soo benn ay wala benn lor yàlla moo ko protégé xamaha yàlla aar na ko zo baxa in yàlla mi borom des sawara mi ko niral moo aar eh, madinatul munawara ba iblis mënu faa yàq dara akrama rabbul arsi madina mu akrama madina madina madina mustafa arsi borom aras yàlla zal madina boobu réew di madinatul munawwara akrama rabbal arsi sal madina ilaa jinaani wasaana diina ba keroog ñuy tàbbi àjjana nag benn ay du wàcc madina yàllaa ko aar moo ko ñoŋal wasaana diina te moo sàmm diina ci protéger ko hadama ma bannaahu hadama ma bannaahu hadama ma الله كل الله من جعل المختار عبد الله هدم مبلنا kan moo màbbal man yàlla mi nga xam ne jaalal muxtaara moo def yanantu bi abdullahi muy ab jaamam moo màbbal maa lépp loo xam ni banaawu tabaxoon na ko kullu képp koy foo la nga tabaxoon màbbal na ko adama ma banaahu kullu lépp luy xërëm wala franc-maçon wala lu bon wala luy xeex islaam yàlla màbbal na ko moom yàlla mi def yanantu jaalal màbbal na maa banaawu la mu tabaxoon kullu bépp fokat man yàlla mi ko def nag jaalal muxtaara moo def bi mu tànn abdallahi muy ab jaamam adamama bannahu kullullahi te yonent bi gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam man jaalal Mokhtar Abdallah. moom la Victor Hugo ni il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne quoi qu'il perdît sa force et qu'il ne fît plus. Adamama bannaahu kullu ans une fièvre le prit il relut le Coran de sa main même. man jaalal Mokhtar Abdallah. puis il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant je touche à mon aube dernier. Ibrahim booboo tax Lamartine wooy ko ni si la grandeur du dessein la petitesse des moyens et l'immensité du résultat mam jàngalal Muxtaar Abdallah sont les trois grandes dimensions du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad Seydina Muhammad hadamama bannaahu kullullah Lamartine nee na personne ne l'osera faire parce que les plus fameux n'ont remué que des lois des empires al Muxtaar Abdallahi. Ils n'ont fondé que des puissances matérielles écroulées souvent avec eux. Mais celui-là, Mohammed a remué des armées, des législations, des empires. Des dynasties, de millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a de plus remué des hôtels, des dieux, des Hasal aminu minal maula nubuwatuhu. Des âmes a fondé sur un livre. Hasal aminu minal bi làq na ak nubuwaam te booba sax aadama amagul. Hasal aminu loolu Serigne Touba wax ci laa illah illallah muhammadu rasulullah. Hasal tontu Alphonse Lamartine ci laaj bi muy laaj. xidman waa daamu fii salsal xadlu bi daa nee na bi yàlla di tànn yenant bi booba banub maam aadama dañ koo tën kenn laalagu ko muhammadun xayru yenant bi moo gën may yem si képp kuy dox ala xadami ci ndëggu tànk du sama muhammadun man lillahi xad sajada sëñ bàmba na yanantu bee gën képp kuy sujjóot muhammadun man yem si kuy dox ala xadamin ci say ndëggu tànk muhammadun xayru man lillahi xad sajada waaye yanantu bee gën képp kuy sujjóot ci sa jë mahat mahabati mahat mahabati al muxtaara sayyidana muxtaara sayyidana seexul xadim nee na effacé na ci sama xol ba mu jeex tàkk-tàkk ak cofeel gu ma war a am ci leneen dul yatam bil maxaani wal ahliina wal walada soppatuma samay doom soppatuma alal soppatuma dara sama deret ak lépp jox naa ko Moustapha demmi sama deret wa ahli ak sama ñooñ wa awlaadi ak samay doom fi daaw lahoo jote naa ko remplacé ko xadiman lahoo muskaana li sanada jote naa ko sopp yanant bi ma nekkee di jaamu bi yàlla nekk kuy liggéeyal sama borom jox naa ko lépp ginnaaw bi nga xamee ni mooy sama wéeruwaay. waa alayhi wa kon baax na